أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون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 تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين <coughs> الذين يظنون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 وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد إمام جنت رجل جنت صلى الله عليه وآله وسلم نيوان فتيج كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري جسن جتاي بي ويسو جسر يغلو نانتي باب الكفن في القميص الذي يكف aw kaf ñu gisoon ci xadis seydna jaabir radiallahu taala anhu bi nga xamante ne dafa wax ne seydna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ñëw ci abdullah ibnu ubay ginnaaw biñ ko robee mu daal di koy génn daal di uf ci moom euh, daal di koy solal li nga xamante ne moom mooy xamisam naka noonu gisoon nañ ci baabul kafani bi xeyri xamis muy buntu bi wax ne càngaay bu mëna manam bu amul khamis mu dal ci in hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha wa nga rafa wa dafa kufina ne sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati aswab suhul kursufin laysa fiha xamisun wala imama yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dagn ko sangé ñetti ci ñetti mbalaan yoo xamante ne euh, coton lañ koy defaree te muy jóge ci yaman euh, te euh, amul woon xamis naka noonu amul woon amaama <coughs> naka noonu xadis boobu indi na ko ci ay ñaari riwaaya naka noonu indi woon na ci baabul kafane bi la amaama mu indi waat ci jëmmi xadis boobu muy baa bunt bi nga xam ne moom mooy wax ne càngaay li maanaam càngaay bu amut amaama naka noonu euh, gisoon nañ ci baabul kafani min jamiil maali bi bunt bi nga xam ne moom mooy wax nekk càngaay gi ñu ngi koy jëlee ci mboole alal mboolem alalu nit ki waaye tamit dañ koy jë mën a jëlee itam maanaam bu alal ji dong desee maanaam nga xam ne alal u càngaay gi rekk ci des bu boobaa dañ ko ci jële ñu gisoon ci ne loolu la si imam ata ibn abi rabah imam az-zuhri ak imam ibnu dinar ak imam qatada ibnu sa as-sadusi wax rahmatullah alal jamii ma jeeg Amru ibn Diinaar daf ci yokk seen alxanuut min jamii al maal maanaam moom mooy sax ne euh, gëtt gi moom itam ci mboolem alal ji lañ koy jële naka noonu Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i wax na ne yubda'u bil kafani summa bid dayni summa bil wasiyya mu ne dañuy tàmbalee euh, li nga xam ne mooy càngaay gi topp ñu daal di jël li nga xam ne moom mooy bor yi topp ñu daal di euh, daal di ciy teg li nga xam ne moom mooy ndénkaane yi نجا نونو جزء ننتي وخ سفيان ابن سعيد ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى من الأجر القبل والغسل هو من الكفن ما نام باي بامل بي اك تان اك سانغي لب تي تانغاي جي لبوك جزء ننو تي حديث سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه في حمد الله نتلك maanaam bi Seydina Musab ibn Umar ak Seydina Hamza radiyallahu taala anhu ak génne àdduna bi nga xamante ne moom lañu leen solal seen maanaam burda bi nga xam ne moom lañu leen solaloon loolu mu koy nettali di ko fàttaliku gisoon nañ tamit baabun iza lam yujad illa sawbun waaxid buntu ki nga xamante ne amul lu bu benn mbalaan kese maanaam mooy bu boobaa moom lañ koy defal comme ni nga xamantene non noonu la non lañ ko gisee ci na abdurrahman ibn awf bi taala huma ñoom ñuy wax ci dina musab ibn umayr taala anhu mu kufi kuffina bu def ida gutiya ra'suhu badat rijlahu wa in gutiya rijlaahu bada rasu ngaram nga xamantene dañ ko cang dañ ko sangé ci ben burda bo xamantene mom la yoron nga xamantene ne ko sangé sàng bu sangé sàngee Euh, euh, tànk yi feeñ bu ñu sàngee tànk yi tamit bopp bi feeñ maanaam euh, te loolu mu nettali lu mel noonu si si Seydina Hamza radiallahu taala anhu maanaam naka noonu gisoon nañ ci baabun idaa lam yajid kafanan illaa maa yuwaari rasahu aw qadamayhi xatta rasa bunt bi nga xam ne moom mooy wax ne su fekkente ne nit ki amul càngaay lu dul loo xamante ne dana muur bopp bi wala bopp tànk yi waa boobaa bu ñuy tànn dañuy daal di muur bopp bi bàyyi tànk yi mu indi woon ci xadis Seydina Xabbaab ibnul Arat radiyallahu taala bi nga xamante ne moom lay nettali li nga xam ne moom moo daloon Seydina Musa ibnu Umar radiyallahu taala mu ne ñu ngi koy boom bisub Uhud mu ne eh, qutila yawma Uhudin falam najid maa nukaffinuhu illaa burda idaa gattaynaa bihi ra'sahu xarajat rijlahu wa idaa gattaynaa rijlayhi xaraja ra'suhu fa amarana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an nuxattiya rasahu an nuxattiya rasahu wa min al izxir mu ne yenente bi sallallahu alayhi mun a biñu biñu buumee sayyidina Musab ibn Umar radiyallahu taala anhu bisu Uhud <coughs> amuñu ko sàngee lu dul burda boo xamante ne bu ñu sàngee bopp bi bu ñu sàngee euh, bopp bi tànk bi day daal di feeñ maam génn suñu fekkente ne muur nañu euh, tànk yi euh, bopp bi day daal di génn yonent bi sallallahu alayhi wa ñu digal ci ñu muur euh, ci ñu muur bopp bi te ci tànk yi ñu daal di cay def ak maanaam ak maanaam mbopp boo xamante ne xeetu xatax la xanc la wala xanc la maanaam loolu nga xam ne kon moom mooy lu ñu mujj woon gis ci suñu jotaay bi weesu léegi nag imaam al buxaari rahimahullah ne baabu man istaadda al kafana fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam falam yunkar alayhi baabu buntu man nga xamante ne istaadda dafa daal di waajal bopp maanaam daal fa waajal al kafan maanaam euh, li nga xam ne moom mooy càngaayam fi zamani nabi ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam falam yunkar alayhi te kenn diingatu ko ci maanaam loolu moom buntu bi imaam al buxaari. rahimahu allah taala daf ko indee ni manam ngir ne hadith bi day wax ci manam day day da fay da fay wax ci xalu ku melni waye ngir ne mom day delloo lu ci upp ci ay waxam wala danaka tarjuma yu ci bëri daf koy delloo ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala bok ci xew-xew bu ci am loolu mom motax imam al bukhari rahimahu allah taala wax ko ni waye li nga xamne mom lay wax li ci upp limu limu nam ci tarjuma bi manam mom moy dafa bëgg wax ne nit ki maanaam mën naa waajalal boppam li nga xam ne moom mooy càngaayam waaye loolu dara nekkut loo xamante ne lu ci aay la maanaam bu fekkonte ne sax am na luñ cey wax dañ naan sax xëy na lu nu mën a rafetlu la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim <coughs> rafetlu nanu maanaam nit ki nga xamante ne dafay waajal càngaayam naka noonu mu uh, uh, ñenn ci ñoom rahmatullah alayhim rafetlu nañ tamit ki nga xamante ne dafay waajal bàmmeelam maanaam nga xamante ne moom mooy dem gasal boppam bàmmeelam ne ah man daal bu ma génnee àdduna bëgg naa fii ñu suul ma fi léeg-léeg sax am na ci ñoom ñoo xamante ne dañ daan dem di dugg ci maanaam dañ gas bàmmeel dem ba dugg ci noonu maanaam ngir bàyyi delloo wax seen xel ci ne ñoom fii la ñuy mujj maanaam après génnaat waaye loolu ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim rafetlu wuñ ko ndax dañoo jàpp ne saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñu ko woon def te su fekkonte ne am na loolu ngëneel mi ngi ci manam bu boobaa dinañ gis lu bëree bëri ci sahaba yi radiyallahu anhum diko def te toxaluñ kenn ci ñom ko xamantene mëss nako def waye terewul ci bir salaf yi radiyallahu anhum manam moy borom manam mak ñu bax radiyallahu taala anhum amna ci ñom ño xamantene daan nañ ko def lool mom motax lenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi rafet lu ko lool manam ci nit ke ala kulli halan mu daal di waajalal boppam bi nga xamantene maanaam moom mooy maanaam tànn maanaam daal di xam ne ah man kat bu ma génne àdduna fii laa bëgg ñu rob ma fi maanaam loolu ndax ba pare mu fa bëri lu mu fay dem masalan dafa jàng alquran wala yu mel noonu nga xamante ne wala mu fay sikar maanaam loolu yëpp wala boog mbalaan mi nga xamante ne moom la bëgg ñu sàngee ko ko bu làkkoo mu nekk mbalaan moo xamante ne léeg-léeg daf koy jël di ko sàngoo di ci jaamu yàlla wala boog di di ko lal di ci toog di ci julli wala yu mel noonu loolu yëpp maanaam mu nekk loo xamante ne xeetu lu koy waajalal la te it barkeb loola mën na ko topp ci bàmmeelam bu demee wuyu ji boroomam subhaanahu wa taala mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa abdullah ibnu maslamata moom mooy ibnu qaanab alqaanabi rahimahullahu taala alxaari abul abdurahman alqaanabi alxaarisi moom mooy sëriñ bi njëkk ci imam al imam abu daawuda solo ay xadiisam ci sunanam rahimahullahu taala muy imam bu mag bi nga xamante ne moom la imam al imam Malik rahimahullahu taala doon wax nan nañ dem ci ki gën ci nit ñi maanaam ci jamonoom <coughs> moom te ànd ak ne taalibi imam Malik la rahimahullah moom ñu génn àdduna deux cent vingt yi ma ne ginnaaw ko day yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wala deux cent vingt yi ñoom année mu ne qaala xaddasana ibnu abi xaazim te moom mooy abdul aziz ibnu abi xaazim te abu xaazim moom mooy salamat ibnu دينار المخزومي رحمه الله تعالى مم ابو تمام موم موي داكانتال مم عبد مم ابن ابي حازم موي عبد العزيز المخزومي رحمه الله تعالى مم ومدينة مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام مم القانبي تي نيغا خامتاني موم وا بصره لا وايي تامت نيغا خامتاني نيوم لا ني كونتي تي مدن nga xamante ne ñoom ñooy taalibi imam malik madani yuuna yu maanaam alqaana bi moom ci lañ koy boole euh, moom ibnu naafi ak ibnul maajishun euh, bu ñuy wax madani yuuna ci euh, maliki yi rahmatullahi alayhim taalibi yi imam malik yi maanaam ñoom ñoo ci gën a ràññeeku am na tamit ñeneen moom mi ngi maanaam ibn Abdul Aziz ibn Abi Hazim bi mi ngi gane àdduna cent septième année génn àdduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mu jëlee ci baayam moom mooy salamata ibnu dinaar abu xaasim al araj al afzar rahimahullahu taala di waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi génn àdduna 133e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an sahl te moom mooy sayyidina sahl ibnu saad ibnu saadi radiyallahu taala anhu muy sahl ibnu saad ibnu malik ibnu xaalid ibnu saalabata al xazraji radiyallahu taala anhu muy abul abbas muy dàqantalam wala dañ koy tamit abu yaxya muy waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi gën a àdduna juróomi at laata gàddaay bi sallallahu alayhi àdduna 88e <coughs> année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi mu ne annam ra'atan mu ne dafa am benn jigéen boo xamante ne jaa at dafa dikkee annabi yenente bi sallallahu alayhi bi burda mu daal di burda maanaam euh, mu daal di man suujatun boo xamante ne dañ koo ràbb fii ha boo xamante ne mi ngi ca xaasiyatuha cat ya maanaam catu ràbb gi ba tey maanaam mi ngi ca luy wane ni maanaam ràbb bu bees la boo xamante ne defaraguñ ko mu ne attadru na ndax xam ngeen mal burda mal burdatu lan mooy burda maanaam mu ne xaaloo mu ñu ne mu ne asham la maanaam mooy lu làmboo maanaam boo xoolee Seydina Sahl ibn Sa'd radiyallahu taala anhu baaxoo na suy jàngal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay taalibeem maanaam di leen jàngal mbir da naan leen ndax xam ngeen nangam lan la comme ni nga xamante ne noonu la ko defee woon ci waa ci tasfiq maanaam ne xam ngeen lan mooy at tasfiq mu ne mooy maanaam fii tamit loolu la ne mu xam ngeen lan mooy al burda mu ne mooy cham la maanaam moom mooy lu làmboo maanaam mooy loo xamante ne nit ki bu ko muuroo daf koy eh, da koy da koy da koy wër <coughs> mooy manteau mun ah, mu ne mu ne mu qaala mu ne naam waaw mu ne qaalat mu daal di wa qaalu ñoom ñu ne achamlatu cham maanaam mooy lu loo xam te ne day matale yére boo xam ne dafa matale qaala mu ne naam voilà waaw kay mu ne waaw loolu la maanaam li ngeen wax nii définition bi ngeen jox burda loolu la qaalat mu daal di wax ne nasajtuha maanaam ndaw sax qaalat jigéen ja nga xam ne moom moo ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam may ko ko daan ne nasajtuha man maa ko sa ràbb bi yad yi ci sama loxo fa jiitu waaye dama koo dikkee li ak suukaha bu ko defee ma daal di la koy sàng maanaam mooy dama la koo jox bu ko defee yow nga mën koo sàng sa mu bokk ci li nga xamante ne moom ngay sàngoo maanaam nga mën koo sol saa yu la neexee loolu moom moo tax maanaam da ko ko indil hadiya loolu tamit fa axadaha mu daal di koy jël annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muxtaaja mbirum nekk aji aajowoo ilayha jëm ci moom maanaam mooy ne kon yenent bi loolu tamit bokk na ci maanaam ni yenent bi sallallahu alayhi moom boo ko daan jox addiya daka daan jël waaye nag du la bàyyi noonu maanaam danaa da ci kanam maanaam léeg-léeg du ci saasi waaye léeg-léeg maanaam daf daan def lu ñu tuddee mukaafa maanaam dana xool moom it lu askanoonte ak yow loo xam ne war na laa mën a jariñ mu daan la koy yëpp maanaam moom it noonu la ko noonu la daan def loola tax sax mu ne man ahda ilaykum maanaam wala boog man man asda ilaykum maarufan wala man ahda ilaykum fa kaafi'uhu fa in lam tastatiu fa quulu lahu jazakumullahu xayran maanaam bu fekkente ne nit ki dafa ñëw indi ci ak njariñ loo xamante ne eh, wala ak njekk la njekk wala boog mu jox la ab addiya wala yu mel noonu na ngeen ko na ngeen askanonte ak moom maanaam ngir jëflante moom lu askanonte ak loolee maanaam nit ki daal duñ ko def rek luñ ko jox mu jàpp ne maanaam dëgg-dëgg Euh, voilà dafa normal daal maanaam kii lim ma may nii c'est normal maanaam mooy cadeau yi nit ñi di joxante cadeau noonu mooy mu jàpp ne cadeau bi dafa normal kese déedéet maanaam na ngeen di jëflante tamit lu askanonte ak loola waaye su fekkente ne euh, mënoo leen ko maanaam amoo leen lenn loo xamante ne xëy na di ngeen ko joxe di ngeen ko mën a defaat maanaam ngeen delloo njekk googu maanaam njekk teral teralante googu bu dee mënoo leen ko nag bu boobaa na ngeen ko wax jazakumullahu xayran maanaam na ngeen ko wax yàlla na la yàlla fay am na tamit beneen riwaay mu ne fadda ulahu na ngeen ko ñaanal maanaam ngir ne loolu soo ko defee bu boobaa nit ki dootul amati dara lu mu lay man a ñaaxe maanaam dootul loo mën a waxate a ah yow de defal defal naa la nangam ak nangam ak nangam ak nangam déedéet parce que yow de toute façon wax nga ko ne yàlla yàlla fay la maanaam comme que yàlla koy moo koy fay nag loolu moom sax moo ëpp doole faf li nga xamante ne euh, moom la la defal léegi nag mu daal di des euh, beneen mbir foofu noonu moom li nga xamante ne moom la ñuy xamante ñun naan dañuy njëkkale maanaam joxalante njekk wala boog joxalante ay jokkalante ay teranga loolu dina baax waaye dafa am ci ay charte maanaam feeg nekkul loo xamante ne ak lor daf ciy mujj juddoo comme ni nga xamante ne noonu la amee ci ndawtal yi ak ndeyale yi ak yu mel noonu nga xamante ne ak lor daf ciy mujj juddoo wala boog maanaam mu mujj dem ba nga xamante ne daanaka day yàq ay diggante maanaam nga ni nga xam ne mën ngaa ñëw ci dëkk wala mën ngaa ñëw ci réew wala boog mën ngaa taseeg say mbokk waaye wala boog nga ay say àndi jàmm waaye nga gëj leen a gis wala yu mel noonu waaye nga ne mënuma faa dem ngir ne awma lu ma ko yóbbu maanaam ngir ne loolu dafay mujj dem ba nga xamante ne day daal di yàq ay diggante ba mujj nga xamante ne nit ñi lu rafet li nga xam ne moo daan seq seen diggante dootul amate amul la tul loo xamante ne lu naturel la seen diggante lépp ay calcul lay mujj doon loolu moom bu yeggee foofu rek maanaam loolu lu bon lay daal di mujj nekk comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci suñu jamono yàlla nañu yàlla sàmm. mu daadi wax ne kon nak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam djel ko fek mu aajo ko way fa kharaja mu daadi génn ilay naa jëm ci ñun manam ñun sahaba yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wa inna haate ñu gis ne mu nekk nak izaru moy lambayam fa xassanaha mu daal di koy rafetlu lool fulaanoon diw manam moy diw mom nak imam al muhib at tabari rahimahullahu taala neena na sayidna abdurahman ibnu awf la radiyallahu taala manam mom moko moo ko rafetlu woon comme ñu ñëwé ñëwee ci riwaaya xadis bu nekk ci imaam boobu ci eh, bu imaam at yi solo rahimahullahu taala mu daal di kon diw moomu daal di koy rafetlu nag daal di ah waaw eh, kon abdura eh, moom maanaam muy seydna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu maanaam loolu tamit dañuy gis ne maanaam nit ki tamit bu fekkente ne dangaa gis ci sa mbokk jullit loo xamante ne lu rafet la wala loo jàpp ne lu ñu mën a rafetlu la maanaam nga rafetlu ko loolu nekkul loo xam ne lu aay la maanaam nga ah sa yëre bi de rafet na wala li sol rafet na wala nangam bii de rafet na maanaam loolu wala lii de baax na lool moom aayut euh, mu ne euh, fa qaala mu ne ko ugsi nii ha waa maanaam ugsi euh, ugsu nii ha solal ma ko waaye jox ma ko maanaam jox ma ko ma di ko sol maanaam jox ma ko maa axsanaha ak rafet maanaam voilà maanaam kon loolu mu wax nag xaalal qawmu maanaam nit ñi daal di commencé wax nag maanaam nit ñi ne maa axsanta yow de rafet loolu li nga def de rafetut maanaam ma ahsanta yow de lii nga def rafet ndax lan saha sol na ko annabi yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam da ngay gis saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam ànd ak li ñu bëggante woon ni ñu nekkee benn yépp maanaam ku ci gisoon ci sa moroom loo xamante ne la mu def maanaam gis na ni lii kat rafetul maanaam daf ko koy wax ni ko ah lii nga def de rafetul maanaam comme nii nga xam ne noonu la amee bu ko defee mu daal di xam moom it wu wala bok mu mën a nekk koo xamante ne eh, day daal di jàjju maanaam yedd pom mu ne ñoo ko lii nga def day rafetut nu lu tax mu ne labi saxaa daf koo sol yére bi annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam muxtaajan mbirum nekk aji aajo la yaa jum ci moom summa topp nag sa altahoo nga laaj ko waa alimta te xam nga ne annahoo naka moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yaruddu du delloo maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam boo ko ñaanee wala nga laaj ko wala du la du la du bañ maanaam yow xam nga loolu nga daal di ñëw naan ko jox ko manam lol tamit dañ ci xamé ni ko xamante ne du delloo duy bañ koku bala nga koy ñaan wala nga di ko laaj manam da nga wara xolaat dal manam waro nek rek duñ def luñ ne ñoxor jaay rek nga ñew laaj ko manam ngir ne moom du delloo te du bañ euh benen bi ci dess tamit mooy day wone teranga manam ak ak manam jikko ju rafet ji Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amon amoon bi nga xamante ne moom doonu toon wax muk dedet loolu sax motax tax euh, loolu la Seydina Xuseynu radiyallahu taala anhu maanaam doon ci moom ba faras dàq doon ko ko way naan ko maa qaala maa qaala laa qattu illa fi tashahudihi lawla tashahudu kaanat laa uhu naamu maanaam moom du wax mukk laa maanaam déedéet mu ne euh, faras dàq ne euh, imam Hussein Seydina Hussein radiyallahu taala anhu du wax mukk déedéet ba mu des ci taayaam maanaam suy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah maanaam laa baatu laa foofu rek ngoy la koy waxee bu dul woon taaya yi muy wax noonu kon laa yëpp naam lay doon maanaam loolu maanaam waaw lay doon maanaam ngir wax ne yéen moom noonu mu mel jikko jooju mu am mooy jikko ji nga xam ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam amee woon te mu doon ko ci moom moom mu ne euh, bi nga xamante ne xaala wax na ne inni ko man de wallahi maa ngi waat ci yàlla ne sa'altuhu laaj naa ko maanaam muy expliqué wu nag lu tax kon mu doxalee noona mu ne man de dama ko ko maasa altuhu laaju ma ko ko li al biso li al basahu bu ko defee ma di ko sol indi na maa li am ba des mooy sa altuhu dama ko ko laaj li takku ngir mu mën a nekk kafani sama càngaay maanaam ngir ne mbalaan bii ma gis yeneen bi sallallahu alayhi teg ko sa maanaam mu làmbaayoo ko noonu maanaam nga xam ne day ñaq-ñaq bi dal ci euh, euh, karaw yi léeg mu takk ci wala yu mel noonu barke boobu noonu moom duma ko bàyyi kenn dama koo bëgg a laaj bu ko defee man ma mën koo sa maam mu mën a nekk sama càngaay maanaam qaala sahlun sayyidna sahlun radiyallahu taala anhu daal ne fa kaanat kafanu mu daal di moo mujjoon moo nekkoon càngaayam maanaam <coughs> loolu tamit maanaam nga gis ne kon nit ñi maanaam ñoom dañ daan waajalal seen bopp maanaam bu boobaa nag loolu mu def na ko xiyaas ci li nga xamante ne moom mooy li aju ci eh, mënam na ko xiyaas ci li nga xamante ne moom moo aju ci maanaam bàmmeel yi comme ni ko ñenn ci salaf yi doon defee ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wallahu taala alam hadith bi imam bukhari Buxaari taala dina ko indiwaat xadis numéro 2093 ak 5810 ak 6036 ak 5321 imam imam imam Maaja moo ko 5300 imam an nasai 5321 imam Ibn cinq cinq 3555 imam ahmad ibn hanbal 22825 maanaam kon dañuy gis ne waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñett ñoo ko ci indi muy imam al buxaari imam an moom imam ibn maaja maanaam mu nekk xadis kon boo xamante ne imam al buxaari daf ko wéetoo wallif imaamu muslim rahimahullah maanaam mu nga gis ne kon euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñooy imam ab muslim imam abu daawuda ak imam at-tirmidhi solo wuñu ko rahimallahu al jamii mu ne baabu itibaaxi nisaa il janais maanaam muy leeral baabu bunt bi mooy bunt itibaaxi topp al nisaa yi jigéen ñuy topp al janais maanaam mu mel léegi nag génn nañ ci li nga xamante ne moom moo aju woon ci càngaay gi maanaam li nga xam ne moom moo aju woon ci euh, càngaay gi maanaam ci sang gi génn nañ ci génn nañ tamit ci bunt yi nga xam ne moom lañu tegoon ngir càngaay léegi nag muy dugg ci beneen wàllu bunt moom mooy lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu topp néew ak maanaam ak waajur maanaam yu mel noonu mu ne nag topp néew maanaam tibaaw nisaay bu mu mu ak ak ak xabru tamit maanaam lu aju ci wàllu jigéen ñi d'abord la njëkk indi maanaam mu daal di indi ci maanaam topp bi nga xamante ne moom la jigéen ñi euh, tibaaw moom jigéen di topp ak nisaay jigéen ñi aljanaiza maanaam néew yi <coughs> li nga xamante ne nag moom mooy topp néew gisoon nañu atte yi nga xamante ne moom moo ci aju woon maanaam mu nekk loo xamante ne fardu kifaaya la Euh, mu nekk tamit loo xam maanaam maanaam euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax ne tamit maanaam euh, gisoon nañu ñenn ci maalikee dañuy wax sunna waaye liñ ci tu jublu moom mooy sunnatun mu akkadate moom mooy sunnatun waajiba maanaam kon bu boobaa dañuy gis ne lool tamit dafa nekk rek loo xamante ne bu wax ji day daal di mujj nekk benn mooy ne topp léew day nekk lu war ci kaw mboolem jullit ñi maanaam bu fekkente ne am nañu ko def nag mu wàcc ñeneen ñi ci des topp néew moom mooy jull maanaam fe fekkee maanaam mooy sang gi maanaam fekkee li nga xamante ne moom mooy ni ñu koy jullee euh, ak li nga xamante ne moom mooy dem ba yóbbu ko ba rob ko amma topp ko nag gisoon nañ ne fuqaha xanafi rahmatullah alayhim ñoom li ñu jàpp ne moo gën moom mooy dox ci ginnaaw waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhurul ulama gisoon nañ ni li ñu waxoon ni moom moo gën moom mooy dox ci kanam maanaam mooy fuqaha maliki shafi ak hanabila rahmatullahi alayhim naka noonu tamit bu fekkente ne nag léegi jigéen ñi ñoom topp gi ñuy topp euh, maanaam fuqaha hanafi rahmatullahi ñoom dañ ne bu fekkente ne nag jigéen ñi dañuy topp néew yi bu dee ñoom la ñoom ñooy topp néew euh, maanaam dañoo bokk ci topp néew gi euh, bu boobaa li nga xamante ne moom mooy gën nag ci góor yi moom mooy ñoom ñu nekk ci kanam fa ñoom ànd ak ne ñoom ci ñoom dañoo jàpp ne topp néew gi jigéen ji di topp néew dafa xaraam maanaam ñoom fuqaha hanafi rahmatullah am dañoo jàpp ne jigéen warta topp néew benn ñaareel bi ci des maam ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam li mu leen wax ne irji'u irji'na mu az mazuratin ghayra ma majuratin ma mazuratin ghayra majurat de dellu leen ànd ak ne doo leen duñu doo du ngeen ami bàkkaar te doo leen ànd am ak pay maanaam bi nga xam ne jigéen ñi dañoo ñëwoon ngir topp néew bi waaye loolu dinañ gis ne wax jooju dañ koo folli dinañ ko gis léegi ci xadis sayyidat Ummu Atiyya bi radiyallahu ak ne xanaf yi rahmatullah alayhim ñoom ba tey terewut ñu déggee ko ne rek dañ koo tere daf xaraam ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jumhurul ulama rahimahumullah <coughs> ñoom tamit ci seen biir dañ cee am ak teqantal ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa ay Shafi'i ak euh, Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ dañoo jàpp ne ligg nga xam ne moom mooy wàllu topp néew dañ koo sib maanaam ci jigéen dañ koo sib nekkul li nga xam ne moom mooy li waaye nag bu fekkente ne jigéen jooja maanaam ki nga xam ne moo génn àdduna jëkkëram la wala boog mu nekk koo xamante ne xëy na euh, daf koo jege mu mel ne euh, rakkam wala magam wala bokk mu nekk ndijaayam wala jarbaatam maanaam ñoo xamante ne daal dañoo jege lool euh, nit ki maanaam ku jigéen waaw ki génn àdduna wala bokk ñu nekkandoo ci dëkk boo xam ne ñoom ñaar rek a fa nekk ay mbokk ak yu mel noonu bu boobaa loolu dootul nekkati lu aay ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo gis ne aayul bu fekkente ne mag màggat la maanaam koo xam ne jigéen ju magee la loolu aayul waaye su fekkente ne nag ak ah, niki noonu xale bu ndaw maanaam jànq aayul tam mu topp néew waaye day am condition mooy mu solu noo xamante ne nekkul solin goo xamante ne gu ñàkk a jaadu la maanaam mu solu rek maanaam mu solu tamit ci anam goo xamante ne gu gu baax la goo xamante ne gu gu gu du du attiré bëtu kenn maanaam du xëcc xoolu kenn manam bu boba lolou mom bu boba dootul nekati lo xamantene lu ay la ci mom waye luddul lolou rek ñom itam dañ koy tere comme li nga xamantene non la ko xanafi yi rahmatullah alayhim di tere manam lolou mom moy tekantal nga xamantene mom mo am ci seen biir ñom fuqaha u maliki manam fuqaha yi maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alal jamii mu ne qaala bil isnad muttasil fi al kitab li hadathana qabisat ibnu oqbat te moom mooy ibnu muhammad qabisat ibnu oqbat muhammad ibnu sufyan ibnu oqba ibnu rabiata ibnu junaydab ibnu rabab aswai rahimahullahu taala muy abu amir mooy dàqantalam moom mi ngi génn àdduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam deux cent treize jàpp deux cent quinze ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom waa kuufa la rahimahullahu euh, taala mu ne qaala xaddathana sufyan maanaam kon boobaa dootul jaarati laaj maanaam comme xabisa waa kuufa Sufyaan bi moom ibnu Saïd as-Sawri la rahimahullahu taala ndax moom mooy waa Kuufa moom itam ci ñaari Sufyaan yi moom mooy waa Abu Abdullah Sawri maam Sufyaan ibnu Uyayna waa Kuufa la mais moom dafa gën a nekk xale maanaam moo gën a nekk xale Sufyaan maam waa Kuufa la mais ginnaaw gi waa Makka la moo tax li ëpp ci ñu soloo ci moom waa Sufyaan ibnu Uyayna mooy waa Xijaas ñoom ñu ëpp lu ñu soloo ci moom waaye waa Kuufa yi bariwul lu ñu soloo ci moom moom Sufyaan Saïd as-Sawri rahimahullah taala mi ngi génn àdduna 97 ane génn àdduna 161 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Xaalid te moom mooy ibnu Mihraan al-Hazza rahimahullah taala moom waa Basra la Abul Manazil wala bu Abdullah al-Basri rahimahullah taala al-Mujashii mi ngi génn àdduna 141 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Basra mu ne an Ummul Huzayl Ummul Huzayl te moom mooy Hafsatu bintu Sirin rahmatullah alayha maanaam euh, muy sëru Muhammad ibnu Sirin euh, rahimahullahu taala muy Ummul Huzayl al-Ansari al-Basariya mu waa Basara muy borom xam fiq bu mag boobu euh, moom mu ngi génn àdduna ci li wër-wërloo ci centième année bi tuuti ginnaaw centième année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Ummi Atiya radiyallahu taala anha muy al-Ansariya muy Nasiba wala Nusayba Nusaybat moo gën a siiw waaye dañ koy tamit Nasiba Euh, euh, bint Kaab euh, al Ansaariya radiyallahu taala anha moom waa Madina la ginnaaw ga dafa demoon Basara comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon rahma radiyallahu taala anha annaha qaalat moom nee na nuhiina tere nañ an ittibaa al janaa'iz ci di topp janaaba ci di topp janaaza maanaam mooy néew yi maanaam ñun jigéen ñi dañ ñoo rek ñu topp néew yi lii nag boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ci wuuti kan moo leen ko te maanaam ndax eh, wax ji yenent bi sallallahu alayhi wasallam la wala boog kan la moo tax ñi nga xamante ne eh, moom mooy eh, ñooy xanaf yi rahmatullah alayhim ñoom dañ naan ba tey dese na leer quoi pour que ñoom yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom maanaam li tegu ci wax ji yenent bi la concerné mm-hmm. loolu moom moo tax wala boog moom moo ko déggee noonu wala maanaam ngir ne baat bi yenent bi sallallahu alayhi jëfandikoo du tere nañ ñu maanaam kon am na benn baat bu yenent bi sallallahu alayhi jëfandikoo baat boobu xamuñu lan la maanaam kon bu boobaa li yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon fële ne irjaana mazuratin ghayra majuratin ñun loolu la ñuy bàyyi xel maanaam dellu leen nekk ñoo xam ne dangeen di am bàkkaar waaye nekkote loo xamante ne da ngeen di dañ leen da ngeen di amu pay maanaam ñun ñoom loolu lañu bàyyi xel waaye li nga xamante ne mooy li gën a wér mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moom lañ ko maanaam moom moo leen ko tere comme li nga xamante ne noonu la ko fuqaha maanaam usuli yuune yi rahmatullah alayhim waxee maanaam ndax usuli yuune yi dañuy wax ne maanaam ba mu des zahiri yi rahmatullah alayhim maanaam ne baatu nuhi naa wala umir naa buñ ko amee nii ci yenent bi lañ koy delloo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam saxaaba bu ko waxee mooy ne ki fi nekkoon di leen digal ak di leen tere maanaam te nga xamante ne bu ñu nee dañ ñu doon digal wala dañ ñu doon tere waxu kooku la bàyyi xel mooy wax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa salaam mu ne dañ ñu doon tere kon an ittiba janaazi ci di topp ay néew maanaam kon lii day dëgëral masabu jumhur rahmatullah alayhim maanaam ngir ne euh, kon waaye mu ne walam yozam alayna walam yozam waaye doguwuñu naa ci suñu kaw maanaam wax jii nag mooy dëgëral ne comme que doguñu wuñ ci maanaam nekkul ne dañ koo tere tere boo xam ne dañ cee dogu loolu li muy tekki moom mooy ne nekkul lu xaraam maanaam lu ñu sib rek la mën a nekk wala book mu am tekkantal maanaam kon lu ñu sib la war a nekk wala boog mu xaraam ci ñenn ñi waaye dagan ci ñenn ñi maanaam loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, waxu jumhur gën a dëgër euh, rahimallahul jami xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro 313 maanaam benn partie ci xadis bi maanaam ci xadis boobu la woon boobu 313 euh, gis nañ ko maanaam dinañ ko dinañ ko indiwaat xadis numéro 5341 imam muslim indi na ko xadis numéro 938 ñaari yoon imam abu dawud indi na ko xadis numéro 3167 <coughs> imam ibnu maaja indi na ko xadis numéro 1577 imam ahmad indi na ko xadis numéro 20797 27303 ak 27309 kon ñu gis ne waa saabu kutubu sitta eh, ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam abu ba mu des imam at-tirmidhi tirmidhi nasai rahimallahu al mu ne baabu xaddil marati ala xayri zawjiha baabu bunte xaddil marati ténjug jigéen ala xayri zawjiha ci ala xayri ci keneen ku bokkut ak zawjiha borom këram maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee maanaam ténjug jigéen moom dafa war bu fekkente ne ci borom këram la loolu moom borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dëppoo maanaam toxal nañu nag ne ci al imam hasan al basri rahimahullahu taala mu ne nekk loo xamante ne lu war la waaye dafa nekk loo xam ne lu nu sopp la waaye wax jooju noonu toxal gi dese naa wér kon ci kaw loolu dañuy wax ne ij ijmaa am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci ne maanaam tënju jigéen ci borom këram dafay daal war a amaa luy tënj nag li muy tekki moom mooy maanaam dañuy wax ihdaat maanaam euh, euh, fii imaam Buxaari dafa jëfandikoo beneen baat mooy xadd waaye ihdaat moom la borom fu xam-xam fiq yi di gën di bëri lu ñuy jëfandikoo maanaam moom mooy tënj maanaam bu boobaa li nga xam ne moom la ñuy tënj nag euh, li nga xam ne lay tekki moom mooy. Euh, jigéen ji bàyyi gi muy bàyyi di jiir di toilette maanaam di di defaru ak di nekk koo xamante ne euh, maam di ak di bañ a fanaan këram maanaam loolu rek la maanaam mooy da ngay bàyyi toilette yi yenn toilette yi ak di bañ a fanaan sa kër loolu rek la maanaam ngir waneen maanaam ak tiis gi nga xamante ne moom moo yegg si ci yow loolu lay tekki maanaam loolu nag bu fekkente ne euh, boroom kër la comme niñ ko xamee ñeenti weer la ak fukki fan bu fekkente ne nag du boroom kër. maanaam comme ni nga xamante ne euh, moom lay leeral fii maanaam ñetti fan mënoo ko ci weesu waaye bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci borom kër gi nag léegi ñu ñëw ci borom kër gi bu fekkente ne kon moom dañ ko war a teññ léegi nag ki nga xamante ne dañ koo fase tamit ci la bokk maanaam ki nga xamante ne dañ koo fase te iddaam jeexagul boobaa kooku ci la bokk amaa ki nga xamante ne moom moom ba moom baa in la moom maanaam fase ki nga xamante ne dafa dog maanaam comme ki nga xam ne dafa fase nit ki ñetti yoon maanaam fase na ko ñetti yoon Euh, daal di génn àdduna balaa idda gi di jeex idda yi ndaw sale di jeex maanaam ñetteelu fase gi parce que kooku de toute façon moom mënu ko woon a maanaam kon kooku nag boroom xam-xam yi rahmatullah alam dañ cee wuute ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha xanafiye yi rahmatullah alam ñoom dañoo jàpp ne kooku dañ koy téen day téen ba tey maanaam ngir ne ba léegi mi ngi woon ci buum gi maanaam li koy wane mooy ne keneen mënu ko woon a takk ci diggante bi loolu moom moo tax te comme ci kii la mujjee nekk jëkkëram maanaam loolu moom moo tax ñoom dañ koy daal di boole ci li nga xamante ne euh, maanaam ñoom dañuy jàpp ne téen kooku dañ koy euh, dañ koy ténjal loolu nag wax la tamit lu lenn ci Shaafi'i yi wax rahmatullah alayhim am na tamit ci fuqaha Hanaabila rahmatullah alayhim ñu ko wax nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne kooku kenn du ko ténj parce que kooku nekkatul jabar ak ala kulli xaalin mënu mënuñu ko woon takk kon bu boobaa kooku itam kenn du ko tënji maanaam kooku kooku maanaam jabar jooju jigéen jooju du tënji ngir ne bokkatu ci te ci kaw loolu sax dootul bokkati ci ndono li maanaam ngir ne moom fase nañ ko ba pare ñetteelu fase bi maanaam de toute façon génn na ba pare euh, loolu moom moo tax ñoom kooku dañoo jàpp ne euh, euh, moom du tënji te loolu tamit moom mooy li gën a siiw ci maanaam gën a wér tamit ci mazhabu xanaa bi lay rahmatullah alayhi amaan na tamit loolu mooy li gën a wér am na lenn ci Shaafi'i tamit ñu ko wax rahimallahu jamii léegi mu ne mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Musaddad muy Musaddad amaa bu fekkente ne fas maanaam kii bu bu wérut la sëy bu wérut nga xamante ne bi ñu demee ba gis ne ah waa ji génn àdduna ñu xool na mu takke woon ndaw si ñu gis ne sëy ba wérutoon ah, ah da ko saa yow yow moom jaru ngay tënj maanaam moom du tënj maanaam eh, loolu du ko du du ko ci fekk ah, ah, am na nag ci ñenn ci borom xam-xam rahmatullah am ñu jàpp ne eh, moom ma tërawul day tënj maanaam mais loolu wax ju bëriwul ñu ko wax ci rawatina nag fuqaha xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom ñoo gën a bëri ci ñu ko ciy wax mais eh, dañu koy wax ne non moom de toute façon moom ngir ne bànneex amu ci maanaam. gi ma kii naqar amu ci maanaam ci koo xamante ne moom jàpp na ni la mu nekkee woon ndekete baaxutoon heureusement que euh, waa ji génn na àdduna maanaam euh, ndax moom sinon waaw ci ci lu bon la naroon a dëkk loolu lool maanaam ci buntu boobu lañ ko xoole waaye euh, amaan na wax ji wax ne dana tënji quand même waa en tout cas ala kulli dana donn maanaam wax jooju wax la joo xamante ne mat naa bàyyi xel wallahu alam xanaa xadis maanaam qaala bil isnaad muttasil fil kitaab li haddathanaa musaddad maanaam ngir ne lu tax ndax shibhu nikah moo ci amoon moo tax maanaam mooy du doon fas du woon euh, takk sa euh, sëy mais lu nuroog sëy la maanaam euh, ngir ne duñ ko tuddee njaaloo loolu mu ne fu ko tuddee njaaloo comme que mu ne fu ko tuddee njaaloo nag maanaam bu boobaa shibhu nikah la maanaam moom mooy lu nuroog sëy moo tax doom yi ci juddoo du ñu ay doomu njaaloo ngir ne dañoo jàppoon ne sëy bi baaxoon na ndekete sëy ba baaxutoon maam nañ takkee sëy ba baax na loolu lañ foogoon ndekete nañ ko takkee baaxutoon loolu moom mooy subu nikaax wala boog koo xamante ne jàpp na ne euh, kii mooy jabaram bon loolu ci cas yu yi la ndekete du woon kooku mooy jabar ji maanaam loolu loolu subu nikaax la nga kon euh, euh, euh, lo loolu moom moo tax bu parce que loolu bu boobaa doom yi duñ nekk doomu njaalo te doom yi dañuy doon mun a qaala bil isnaad muttasil fil awwal kitaab li haddathanaa Musaddad mu ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Musawrad ibn Mugharbal wal Mugharbal al asadi Abul Hasan al Basri rahimahullahu taala génn àdduna 228 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi nekk waa Basra mun a qaala haddathanaa Bishr ibnul Mufaddal moom tamit waa Basara la rahimahullahu taala Bishr ibnul Mufaddal ibnu Laahiq ar-Raqaashi Abu Ismaïl mooy dàqantalam génn àdduna 187 ma ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci ñi gën a màgg comme Yaxya ibn Ma'in wax ci sëriñu waa Basara yi moom ci ñi ci gën a màgg la bokk rahimahullahu taala mu ne qaala xaddathana Salamatu bnu Alqama te moom mooy Abu Bishr at-Tamimi rahimahullahu taala moom it waa Basara la rahimahullahu taala mi ngi euh, boobu Abu Bakar al Ansari al Anasi euh, rahimahullahu taala mooy imam bu mag bi Muhammad ibnu Sirin génn àdduna 110e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne tuwuffiya maanaam génn na àdduna ibnu doom libnu li ummi atiya euh, ci woo xamante ne maanaam doomu ummu atiya la euh, radiyallahu taala anha maanaam moom moo génnoon àdduna maanaam ummu atiya mooy alal saariya radiyallahu taala bi ñu doon wax maanaam mu ne falamma ba nga xam ne kaane nekk na al yowmu saalis al yowmu bis al saalis ñetteel ba daat mu daal di woote bi sufur mu daal di laaj bi euh, sufratin ci euh, gëtt gu maanaam xeetu maanaam bu bu jaune maanaam lu jaune lu mbokk comme zafaran maanaam lu mel noonu yooyu la la la la laajte maanaam mooy xeetu euh, gëtt mais day day day jaune couleur bi day jaune waaye du nekk tamit luy xeeñ mu ne fata masaxat mu daal di mu daal di mu daal di ci raayo bi ci moom maanaam mu raayo ci gëtt googu waqaalat mu daal di wax ne nuhi naa dañ ñoo tere an nu ci ñuy ténj ak sara lu ëpp min salaasi ci min salaasin ci ñett fan illaa lu dul bi zawjin ci ci jëkkër maanaam moom mooy bu fekkente ne jigéen ji mën naa ténj góor moom du ténj ijmaa la mhm. maanaam ci ne góor du ténj euh, jigéen mooy ténj te jigéen ji nga xamante ne moom mooy ténj tamit maanaam ñetti fan la su fekkente ne day ténj ku bokkut ak jëkkëram maanaam képp ku ko jege rek ku mu gis ni jege ku ko jege la wala wala am nañu relation bu rafet bu nekkoon seen diggante rek maanaam mën na koo tënj waaye nag tënj googu day yem ci ñetti fan maanaam waaye nag bu fekkente ne jëkkër ji la moom comme niñ koy gisee maanaam euh, ñeen euh, ñeenti weer la ak fukki fan wallahu taala alam xadis bi imaam Buxaari rahimahullahu taala indi woon na xadis cent 313 comme ni ñu ko gisoon xadis numéro 5340 5341 5342 dina ko ci indiwaat imaam muslim indi woon nag xadis numéro 938 ñaari yoon imaam Abu Dawud 2302 comme ni ñu ko gisoon léegi imaam Nasaa'i xadis numéro 3534 3536 imaam Ibn Maaja dina ko xadis numéro 2087 imaam Ahmad dina ko xadis numéro 20794 ak 27304 maa ngi gis ne waa asxaabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imaam ab imaam Tirmisi ak imaam man bam dess imam at-tirmidhi eh هنا قال بالاسناء المتصل في الكتاب الذي حدثنا الحميدي تمام عبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن عبد الله الحميدي رحمه الله تعالى مم مي ابو بكر رحمه القرشي الاسدي ديوا مكه آه، كم مانام مم مي voilà moom mooy ki solo xadis bu njëkk ci Sahih al-Bukhari maanaam euh, moom la njëkk solo ci moom xadis muy waa Makka génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ànd ak nekkoon taalibi Shafii moom mooy ibnu Uyayna maanaam waa Makka la ñoom ñoo solo moom mooy ibnu Uyayna mooy ibnu Abi Imran te mooy al al Hilaali Abu Imran te moom mooy Maymuun mooy al Hilaali rahimahullah taala bu Muhammad mooy dàqantalam di waa Kuufa ginnaaw gi mu nekk waa Makka euh, gën a àdduna cent septième année génn àdduna cent quatre dix huitième année ci weer Rajab ginnaaw gàddaay Yonent bi moom mooy Ayyub ibn Musa ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As euh, muy al-Qurashi Abu Musa al bi صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرني حمير بن نافع تمام الأنصاري رحمه الله تعالى أبو أفلح مداقن تلم أه رحمه الله تعالى محمد بن نافع بن صفوان الأنصاري رحمه الله تعالى مم ميجي مم عن زيد زينب بنت أبي سلمة موي زينب بنت ابي سلمه ت ابو سلمه موي عبد الله ابن عبد الاسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم موي كون زينب بنت ابي سلمه المخزومي رحمه الله عليها موم نغي ن 113 عام غيناو غدا يننتبي صلى الله عليه واله وسلم منا قالت لما بغا خمنه جاء دكنا نعيو Euh, tàggeeg Abu Sufyaan te moom mooy ibnu Harb radiyallahu taala an saxaaba yent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna trente-deuxième année ginnaaw gàddaa yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, mu ne mina Shaam euh, jógee ca Shaam maanaam li nga xamante ne nag moom mooy wax ji lënt-lënt da cee am maanaam ngir ne dañoo wax ji li tax lënt-lënt am ci moom mooy Seydina Abu Sufyaan radiyallahu taala li gën a siiw te daanaka xaw a nekk lu lu lu siiw ci borom moom mooy ne na la génnee àdduna daanaka wuute amu ci maanaam kon wax ji naka la maam boobaa borom xam rahmatullahi alayhi euh, ñenn ci ñoom maam ci surraaxe dañ jàpp ne ñi nga xam ne ki nga xam ne moom moo def def def le mooy euh, al imam Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullah ngir ne yeneen riwaayo yi ñu soloo xadis bi te Sufyaan ibnu Uyayna ci amul mina Shaam maanaam kon moom moo ko def def le waaye nag mën na nekk ne lii dëgg la parce que comme alxaafis ibnu xajar li mu wax ne ibnu abi sufyaan la amaan na ibnu abi sufyaan la bëggoon a wax maanaam waaye daal di abu sufyaan waaye daf fekk ne maanaam bu ñu xoolee xadiis yi bu ñu leen recoupé dinañ gis ne abu sufyaan la quand même du ibnu abu sufyaan maanaam kon maanaam abu sufyaan la ci boppam du doomam maanaam kon loolu nag <coughs> euh, loolu moom mooy euh, euh, mu ne daal dafa woo moom ummu Habiba mooy sayyidat Ramla radiyallahu taala anha di ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayya al-Qurashiyya maanaam muy ummul mu'minina radiyallahu taala anha ummu Habiba maam di doomu yeneen di di di doomu Seydina Abu Sufyan radiyallahu mais di soxna yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna ci 42 ans yi ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom radiyallahu taala anha mu daal di woo bi sufratin maanaam ci euh, gëtt gu nga xamante ne maanaam gu mbokk googu fil yow mi ci bis asaali si ñetteelu maanaam ci ñetteelu fan bi mu daal di woo ne nañ ko jox euh, par comme ibnu umu atiya def radiyallahu anha fa masaxat mu daal di mu daal di raay aaridayha ñaari lexi wa ziraayiha ak ñaari xasab yi wa qaalat mu ne inni naka man kat kuntu maanaam nekk naa an hada wëllif mbir mii la xaniyat di aji woomal maanaam woomal naa wëllif lii maanaam doyowuma lii dara waaye nag law laa bu dul woon an nii naka man sametu dama dégg an nabi yonent bi sallallahu mu wax ne laa yaxillu daganul lim raatin ci jigéen tuminu boo xam ne gëm na billaahi ci bu yàlla wal yawmil aaxir bi ah, antu xedda ci muy tënj ala mayitin ci ah, ak ku génn àdduna fawqa salaasin lu weesu ñetti fan illa ala zawji lu dul ci ab jëkkër ci borom kër maanaam euh, wax ji dafay dëgëral waxu xanafi yi rahmatullah am ñi nga xam ne ñoom dañoo wax ne euh, zimmiya bi du doon du du du du tenj voilà maanaam mooy jigéen ji nga xamante ne ci waa ahlul kitaab la bokk doonte ci bi maanaam jëkkëram kii la jullit la maanaam moom du tenj parce lu tax mu ne ndax hadith bi daf ne la yahlu limraatin dal di wax tu'minu billahi wal yawmil akhir manam mu boole maanaam mu nek ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy du jullit euh way ci jumhur jumhur ulama rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne zimmiya bi day do day day tënj manam ngir ne wax ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf koy faral di wax jublu wu ci ne bo gëmee bo gëmul yàlla gëmul bisu bu mujj bi bu la nexe defal manam buñ xolé fu bari fi muy wax. naan man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yuzi jaarax par exemple képp ku gëm yàlla gëm bis bu mujj bi bu mu lor ay dëkk doom loolu tegtalewul ne boo ko gëmut nag defal bu la neexee maanaam li muy tegtale rek maanaam mooy day day day feddali ne ki gëmut maanaam noonu la war a def beneen bi ci des moom mooy ne xale bu ndaw tamit xale fi rahmatullah dañuy wax ne du pénj xale bu ndaw maanaam koo xam te ne ku ndaw la eh, jotut tàmbalee gis ay mbaaxam ak yooyu ndax lu tax mu ne ngir ne kenn du ko tuddee imraa maanaam waaye bu boobaa dañ naan mafhumul xaalib la maanaam dafa fekk ne rek li ëpp ci ñi tenj mooy jigéen yu ñu mat ñi dégg euh, mu ne fa innaha ndax jigéen ji kay tu xeddu day tenj yi ci ci jëkkëram arbaata ashhurin ñeenti weer waa ashran ak fukki fan te loolu alquran la ci mu ngi sootul baqara comme ni nga xam ne noonu la leere maanaam bu dee jigéen bu maanaam noonu lay tënji jëkk waaye tënji gi nag teg telewul maanaam da nga dafay am rek benn néeg boo xam ne foofu lañ lay tëj wala boog waruloo génn couloir bi wala yu mel noonu déedéet loolu tegtalewul loolu de li muy tegtale mooy dangaa war di fanaan sa kër loolu lay tegtal maanaam boo génnee dem def doxi di ngay def yépp booy dellu si yépp nga fanaan sa kër naka noonu tamit euh, bu boobaa du du kenn ci jamono jooju mu de la labat loolu rek lay tekki naka noonu euh, doo laal ay parfum yu ak yooyu noonu jeex na loolu rek lay tekki waaye tegtalewul ne lu ñuul ngay sol bu déedéet tegtalewul loolu yàlla nañu yàlla sàmm voilà ak tamit ne da ngay tëju da ngay ki nga xam ne couloir booloo ci ak génn boo fu génnee sax fi tool def nga musiba wala yu mel noonu yooyu caaxaan yooyu nga xamante ne yàlla ñu yàlla mu ne euh, baax xadis bi imaam Buxaari na ko xadis numéro euh, mille dina ko indi nii xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-un ak cinq mille trois cent trente-quatre cinq mille trois cent trente-huit cinq mille trois cent quarante-cinq imaam Muslim na ko xadis numéro mille quatre cent quatre-vingt-six ñetti yoon ak mille quatre cent quatre vingt yoon imam Abu Daawud indi na ko xadis numéro deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-quinze imam An-Nasa'i indi ko xadis numéro euh, trois mille cinq cent trois mille cinq cent deux trois trois mille cinq cent quarante et imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro deux mille quatre-vingt-quatre imam Malik indi ko xadis numéro mille sept cent quarante-sept imam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro vingt-six mille sept cent ñoom ñëpp solo nañ suñu xadis bi raximallahu jamia na qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li xaddasana ismail te moom mooy ibnu abi uways muy doomu muy jarbaat imam malik raximahullahu taala abu abdullah al asbahi euh, génn at gane àdduna 139 ane génn àdduna 227 ane ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala xaddasani malik maanaam nga gis ne imam bukhari riwaaya bi nga xam la wax léegi ni imam Malik euh daf ko solo ci hadith numéro 1747 mom moy mom lay tokhal ni manam ci imam Malik rahimahullah taala mun ne xaddasani Malik moom ibnu Anas an abdullah ibn Abi bakr ibn Muhammad ibn amr ibn hazm muy wa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu salaam muy Abu Muhammad dañ Abu bakr muy Abdullah ibn Abi bakr mu Muhammad xasmu moom mi ngi génn àdduna 65e année génn àdduna 135e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne an Humayd ibnu Nafia te moom ansaar yi gisoon nañ ko léegi mu ne an Zeynab bint Abi Salama tam gis nañ ko léegi axbaraatu moo ko solo naa moo ko xabaar naa qaalat nee na daxalatu dugg naa ala ummi Habiba muy zawju nabi radiyallahu taala anha zawju nabi di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu ne na sayyidat Ramla radiyallahu taala bint eh, eh, bint Saxna Harb radiyallahu taala anhuma eh, moom mu ne fa qaalat mu ne sami'tu dégg naa rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne laa yaxillu dagal limraatin ci jigéen boo xam ne tu'minu gëm na billaahi ci buur yàlla wal yawmil aaxir ak bisu mujj bi mu du dagan ci moom tu xeddoo moom muy tënj ala mayitin ci ab ku génn àdduna fawqa lu ëpp salaasin ñetti fan illaa lu ala zawjin ci xanaa jëkkër arbaata ashhurin muy ñeenti weer waa asharan ak fukki ak fukk xam nga aaye bu njëkk bi moom li mu wax ne moom ñaari weer ñaari at la waxoon wala boog non déedéet at at at ah duuna ixraajin te buñ génn waaye bi nga xamante ne aaya bi dafa ñëw aaya beneen aaya dafa ñëw folli ko mooy mooy bi ba arbaata ashurin wa ashura mu ne suma topp du daxaltu ma daal dugg ala zeynab bint jaxshin moom tamit radiyallahu taala di soxna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam muy umul muminin al asad al zeynab bint jaxshin al asadiya radiyallahu taala anha mooy waa waa banu asad la Euh, moom waa Madinatu maam mi ngi euh, génn àdduna Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci vingtième année jàpp vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam waaye xii na jamono yi nga xam ne tuufiya moom la génn àdduna axuhaa mbokkam mooy frère am maanaam léegi ban frère la moom la doon tënji loolu moom borom xam-xam yi lënt lënt bu rëy rëy la am ci ñoom parce que euh, ñetti frère rek la am Abdullahi ibnu Jahsh Ubaydullah ibnu Jahsh ah ah non ñett lañ ak ak Abu Ahmad eh, ibnu Jahsh ñoom ñett la am léegi bu fekkente ne aw ah, kii ki nga xamante ne moom mooy frère bu njëkk bi moom mooy Ubaydullah maanaam moom bi muy génn àdduna moom dañ ko dañ koo rey en tant que yéefir maanaam koo xam ne daa tubbi daa murtadoon moom rek a murtad ci ci biñ ñuy demoon ci Najaasi yi ba mu demee foofu daa daa di gis eh, ci copte yi daa di tuub maanaam daa di tubbi jël seen diine ñu rey kooku yanu maanaa ne moom la doon tënj bu dee Abdullah ibn Jahshin tamit bi muy génn àdduna Uhud la woon te boobu tamit li muy moom dañ ko moom ci ñi ci ci suhadaa waxoon yi la bokk moom it du moom lañ tënj bu dee ki ci des moom bi muy génn àdduna maanaam moom moo mujjee génn àdduna Sayyidat Zaynab bint Jahsh kon ñoom ñetti ñi kan la ci te ñetti frère rek la am loolu tax euh, comme la imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr moom dafa jàpp ne li gën a yanu maanaam moom mooy ne Ubaydullahi la ànd ak ne yéeféer la rey nañ ko nangam mais ànd ak loolu yëpp mbokkoo gi ba tey moo tax mu ténj ko waaye amaan na li gën a wér mooy ne euh, maanaam freeram bi ci mina radaa la maanaam euh, ci ci ci ci ñi mu nàmp la wallahu alam mu ne mu ne euh, nee na kol bi mu génne fa daat mu daal di laaj bi tëy bin gëtt fa masat bihi fa masat mu daal di raayoo laal laal bihi ci moom su ma topp xaalat mu ne maa lii ana lan laay doye bi tey bi ci gëtt gi min xaajatin ci aajo maanaam mooy maa lii maanaam amuma bokk maa lii amuma bi tey bi ci eh, gëtt gi min xaajatin ci aajo maanaam awma ci benn aajo gëtt gi xayra lu du ne am nii nag man sameetu dégg naa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alal mimbar ci kaw mimbar bi yaqulu mu ne laa yaxillu du dagan limraatin ñeel jigéen boo xam ne tuuminu gëm na billaahi wal yawmil aaxir ak bisu tu xiddu muy tënj alaa mayitin ci néew maanaam génnaat na fawqa salaatin lopp ñetti fan illaa lu xanaa alaa zawjin ci jëkkër arbaata ashhurin muy ñeenti weer wa ashan ak fukk euh, bu ñu xoolee euh, wax ji nga xamante ne mom la sayyidat Ummu Atiyya wax radiyallahu taala anha baat bi mu jeufandiko mom moy nuhina manam da ngay gis ne kon wax ji mu top te manam nuhina an nuhidda akthar min salaasin illa bi zawjin te buñu xolé ci yenen hadith yi nga xamante ne moom la ñu wax moy nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'zam alayna te ak yenen yo xamne so setlo sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu anha xadisam yu bëri da ngay gis umirna wala nuhina manam nga gis ne mom kon moom loolu moom mooy waxinam waye wax ji nga xamne mom moom la sayyidat Zaynab bint jahshin wax ak sayyidat Ummu Habibata radiyallahu ta'ala anhuma ñoom lu wax day tegtale ci am gu leer ci ne manam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moko waxon te li loolu manam wax ji loolu lay tekki wallahu ta'ala a'lam hadith bi imaam bukhari nuko manam indi wono hadith 280 manam moy bi wessu comme niñ ko waxe dina ko indiwaat xadis numéro 5334 5338 45 euh te wax na wa sahabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu aljamii wallahu taala alam